tey seen spécial émission Rismon Djizz nee naa la mbisaan ni lay demee saa su nekk ba tax na kookoy mbis mbis temps yi moom a gën a siiw mbis promotion mi ngi dox de <laughs> ba tax na tey nee naa leen aselem lañ tàmbalee woon tey nag gis nga sama rakk jee di ñëw a Diagne HLM lañ tàmbalee woon bés ñëw nekk lu bees ci biir émission bi ñu ne nag comme HLM lañ tàmbalee woon dañuy gore rek delloo bumba ca mboy mboy ga ba tax na tey suñu xarit bés best bii nag il faut ñu expliquer leen ci yaar dañ nekk ci mois de été muy jus boo xamante ne euh, euh, xottu bi rek xottu jus bi xottu canette bi rek qualité la waxuma la ak ba ca biir nee naa la moytul ma qualité parce que qualité day dindi li nga xamante ne nii yooyu bon yooyu ci yaram yu yooyu garaaw yooyu ba tax na best lañ àndaloon tey ci été bi euh, yaakaar naa best dinañu gunge 15 jours ak émission Rismon Djizz kon dootu leen wéet best nag ni muy àndeek ñun dañuy xool ñi nga xam ne xamuñ qualité jus ñi daan naan jus ci mbedd mi ñu jox leen bés imposé leen ko parce que nee naa leen bés seerul euh, te qualité la bés nekk na loo xam ne day faj mak di faj gone ba pare bés moo raw xiis boo ko naanee xoolal da ngay comprendre ba tax na mais bis damay gërëm ki ma defaral sama bopp bi ah. waa kii euh, benn coiffure ñooñu di defaral ay Diop Fall temps yi ñoo koy dagate quoi waa benn coiffure ñoom Khady Sow ak yaayo Khady saw taa ami seen nuyu naa ñëpp ak madame Sow di hôpital Fann rajo xoro les gars parce que nee naa la best dañ koy jox ñi nga xam ne ñoo koy mérito yelloo ko muy ay noble bu fekkee ni noble nga da ngay naan jiwu noble le fait que noble nag mooy di def lu baax di ko wax ba tax na tata bi dañ koy nuyu ci et bu baax waa tata nanga de maa ngi fii noo tudd. ki Fall. waa Kiné Fall est-ce que yow yaa ngi utiliser best. best rek lay naan maak sama talboo. xam nga best du neexaay bi parce que mën na neex te du baax yow xam nga li best di def ci yaram. waaw da leeral. waaw ba pare di seddal sa xol. di dindi say noox noox dindi say noox noox. di dindi sa stress. waaw. Ah. waaye ban clip ngay maye yow. maa ngi ñaan Pape Diouf bi laa lay man mooy sama kii. Ah. moo may daaneel. sunu woy sunu woyu ndëpp bi. léegi jëm koy nuyu ci Pape Diouf bi. sama alaaji aage bu si. E, alaaji xew yi lu xew. talbo talbo ngeen lu xew. talbo waaye meer bee poté. léegi yow koy nuy nga ne sa talbo ak. maa ngi nuy sama famille famille si yëpp képp ku ma xool xam ne Kiné Fall la Kiné nga xamante ne maa ngi nuyu ñëpp Kiné Jus waaw. ko bëgg agi bu set foo ko def fe ay waay ah, mama yow ko bëgg yow foo ma def ay waay e ma ko bes ba tey ñu dox ci bes nee naa leen euh, bu caaxaan jeexee dëgg taxaw jiwu qualité la farfar bi yéen ñi muy déranger le fait que muy fruit kese fruit naturel ànd ak ay vitamine C yu baax yenn xeetu vitamines yi xoolal bes si lambal ni mu seddee lii moo koy daggate xoolal boo lekkee ba suur mën na digérer lu bëgg a wax. ba ci démb